wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yépp di nuyu mbokki taalibe yi waaye di jiital ci nuyoo bi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di ñaan suñ borom bàyyi ko fi te wéral yaramam ba yéene ji am ci liggéeyal Serigne Touba lépp mu man koo àggale lu kawe njortam te ànd kook mbooleem taalibe yi Serigne Touba yépp te lépp dëppook ngërëmul sëriñ bi ñuy nuyu mbokki jullit yi fi teew yépp di yu mbokki taalibe yi di nuyu jàngkatu xasida yi di nuyu dëkkandoo yi bàyyiwuñu kenn waaye ñu àndante feek ku ñuy wax sëriñ Saalihu Jeng bokk ci jëwriñ ñi nga xam ne dinañoo ànd ak sëriñ Saam Mbàkke di liggéeyal sëriñ Tuubaa gàmmu ñag mii ak ku ñuy wax sëñ Modou Guèye ñu ñëw fi mel ne dañ fee teew ngir ñaar muy dañ fee teew ngir wóolale bu dox suñu digganteeg murit jonn te sabab bi sababoo ci alin jonn mii nga xam ne ci njabootu sëriñ bi la bokk waaye ñëw fi teewal fi sëriñ bi ngir ne tund wii yëpp njabootuk sëriñ bi dong fi nekk kon nag buñ fi taxawee mel na ne sëriñ bi lañ fi teewal ñuy sant yàlla bu baax nag ndax daaw fii lañ ko fekke ànd koog yéen yàlla baaxe ñu ba ñu fekkewaat ko ren te ku ne xam na ne ñi ko fekkee du seenu njàmbaar ndax defaluñ yàlla lenn lu tax suñ borom bàyyi leen fii waaye ñi fi suñ borom jële it defuñu lenn lu tax suñ borom jële leen fi kon nag ñu ji sant yàlla bu baax di ñaan suñ borom def ñu fekk koy at yu baree bari muy bis bu am solo nag bis boo xam ne waxtu wu ne ak ci jamono ju ne waroon nañ di gis ñu koy taxawal ndax bisum ñaan la te ab jullit amul lenn lu dul ñaan ndax suñ boroom moo wax ci alxuraan ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma nangu seeni ñaan képp ku joxe ndigal ne ñaan leen ma nag daa yor lu mën a maye moo tax mu bëgg ko ko ñaan kon nag Serigne Aline bu jëlee bis bii jiital ko di ci ñaanal ay waajuram waaye di ci ñaanal jàmbar ju baax joo xam ne dafa ànd nag moom liggéey bi ñu koy wax sëriñ Bay Thiaw sëñ Malick caw kon ñaan yiñ fi ñaan yépp yàlla na ko yàlla nangu te rafet nañ ci njot bu baax ndax taalibey sëñ Tuubaa yaa ngi fi jàngkati xasida yaa ngi fi te lépp alali sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa dafa waxoon ci masaalikul jinaan ne isid duha yanfahu maytan fil xubur wa yanfahu al ayya wa yujibul ujur ne di fàttaliku ku nekk ci biir suuf toog di ko ñaanal ñaan googu nga toog di ko ñaanal dana bëtt suuf si fekk ko ci biir suuf di ko jariñ waaye yow mi toog di ko ñaanal suñu borom dana la bindal ay tuyaaba kon mu mel ne bis la boo xam ne ñun ñëpp waroon nañoo takku fexe ba waxtu wu ne muy am bis bu ne muy am ndax ñun ñëpp amu ci kenn koo xam ne rek ku joxool sa bopp rek am na koo mën a ñaanal am na koo war a waaye am na koo war a kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñaan yiñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu suñ boroom defal ñu tawféex ba niñ ko fekkee woon daaw ànd ak suñu sagoo yàlla def ñu fekkewaat ko ren yàlla nañ ko fekkee at yu baree bari ñuy sant yàlla bu baax nag di ñaan rek murid yi benn bëgg-bëgg dong lan am benn pas-pas dong lan am te mooy liggéeyal sëñ te ku ne xam ne ne liggéeyal sëñ ci ji jamono ku ko bëgg am na looy soxlawoo ndax soxlawoo nga wér soxlawoo nga kàttan soxlawoo nga alal joo mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa ndax am murit ñaar yi dong la soxla muy al lu yóbbu ci njabootam ak lu yóbbu ci ab sëriñam kon nag yàlla na yàlla jàppandal ñaar yépp waaye di soññ mbokki taalibe yi ñu gën a góor góorlu ci jaamu yàlla waaye gën a góorgóorlu ci jub waaye gën a góor góorgóorlu ci nangu liggéeyal Sëñ Tuubaa ko leeral ñu koy mën a xam waaye ba mu demee tamit di ci boole ci di bind ñi nga xam ne fekkantewuñ moom jamono bu ñëwee xam ne lii mu nekkoon bëgg-bëggu sëriñ bi nit nag lu mu wax ci làmmiñam di ko jëfe ci ay cëram bind ko ci ci loxoom lu ko ñor la te ku ne xam ne ne bind lu ko gën a leer amul ndax sëñ tubaab ba mu jógee léegi kenn xamul kañ la te ba fii may wax ak yow foo jaar fekk fa am mbindam bind nag lu nit di nëbb du ko def ndax bind mën naa dox ba àgg foo mës a dem waaye mën naa doxit ba àgg foo mënta dem te kon ne xam ne ne mbindum sëriñ bi bari na fooy dem ci àdduna bi foo xam ne boo demee fekk ko kon nag nañu xam fi sëñ Tuubaa nekkoon ab taalibe li mu war a njëkk a xam mooy fexe ba xam boppam xam li ko yàlla defal bu xamee boppam xam li ko yàlla defal ba noppi nag mu xam kan mooy sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa koo gis mu yaafus ci liggéeyal ko wala yaafus ci jëfal ko wala yaafus ci topp ko ñàkk xam sëriñ bi donc de moo ko dal waaye ñi jamante woon ak sëriñ bi nekk ak sëriñ bi xam nañ kan mooy sëñ Tuubaa ñi ñëwoon ci sëriñ bi ñu ci bari bokkuñu sëriñ bi dara dañoo gis sëriñ bi xam ne buntum ngëneel la mën nañoo jariñoo ci moom mën nañoo yokkoo ci moom moo tax ñu gàddaay bàyyi seen mbokk dem ànd ak sëriñ bi waaye ku ci mel ne suñ jàmbaar ji di see Ahmadou Ndumbe dafa bokk ak Serigne Touba ndax dañoo wax ne Ahmadou Soxna Boussa la ak Sayar Soxna Boussa Ahmadou Soxna Boussa moo jur ku jur Serigne Touba Sayar Soxna Boussa moo jur ku jur see Ahmadou Ndumbe te ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay waaye lépp la see Ahmadou Ndumbe jël teg ko fële jël taalibe gi di ko jëfandoo jëfandikoo xam ne ko la raw ci Serigne Touba ci ak taalibe la raawee. mag ñi moom mësuñoo doyal ci liggéeyal sëñ Touba moo tax Cheikh Ahmadou Ndoumbé topp na sëñ Touba juróom fukki at ak juróom mënoon na ba ba sëriñ bi defaree mu am la mën a mu am la mu bëgg ci sëriñ bi ba ko fa sëriñ bi wanee ginnaaw dem ci géej gi mënoon naa dem nekk ci ay yitteem te du tee léppam defaru waaye booba la gën a laxasaayu booba la gën a feddali laxasaayam mës sa juyoog sëriñ bi lu mu mës am jox na ko sëñ Touba. keroog bi sëñ Tuubaa ñibbisee mu mel ne mësta defal sëriñ bi dara dëgmal sëriñ bi mësta soxla dara ci ak dundam bañ na ko ba tool yi mu daan bay sax mësutaa génne lu muy dunde wala lu muy faje ay soxlaam lu mu mës a am jox jébbal na ko sëñ Tuubaa waaye ba mu demee ba sëñ Tuubaa wan ko ginnaaw mu waat ne lépp lu ma mës a defal sëriñ bi danaa la ko defal yow mii nga xam ne yaa fi nekkal sëriñ muy soo muy sëñ Modou Moustapha jàpp ne mës sa defal waajuram wa dara ba keroog bi ñuy defar jumaay Touba ji man yooyu nga xam ne ci lan daan def ndox bu nawet bi ñëwee ñu taataan ko muy def ndox ba bu noor bi ñëwee liggéey bi bañ a taxaw ci wàllu ndox lépp Seex Ahmadu Ndumbe ko fi andi woon ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi ba fekk magam ju baax ja mës ta wàcc mësta ta tekk la xasaayam mës ta yox-yoxi waaye mësta sikk sàkk ci joxe alalam waaye sëñ Tuubaa nag boo ko dee jëfal dëng ci wéet waaye bu lay fay lu mbooloo mën a jëfandikoo la lay fay dañoo wax ne kenn nit kuy jëf-jëfi mbooloo bu la yàlla fay fayu mbooloo la lay fay moo tax max ñu mbaax ñi àndoon ak sëñ Tuubaa ñëpp bi ñuy liggéey sëñ Tuubaa jënd jëmm dong lan waaye bi leen sëriñ bi fayee kon a xaj na ci kon nag nañu gën a góorluwaat ci gën a doon ay taalibe ci gën a dafa siy jikko ci gën a xam ne ab taalibe li mu war a gën a yittewoo mooy jikko ju rafet te ak taalibe nag képp ku naan ab taalibe ngi nga naan déedéet danga xamul lan la ak taalibe daxa ñëw ndax sëñ Tuubaa day ku ne xam ne ne ak taalibe moom alali boppam la ndax fu ñu tuddee ab taalibe ñu xool ne kii taalibe bi sëñ la te moo de dafa gisoon ne nit ñi li ñu yittewoo mooy xëccoo alal mu jaral leen lu ne ci àdduna ñii xëccoo daraja mu jaral leen lu ci àdduna sëñ Tuubaa fexe na ba képp ku ko yaakaar ñaar yooyu dootoo ko soxla moom ndax sa alal boo gisee sëriñ bi yëkkati ko jox ko sa daraja it boo gisee sëriñ bi dootoo ko soxlaati kon nag nañu xam fi ñu sëñ Tuubaa toll nañu xam li ñu sëñ Tuubaa defal sëñ Tuubaa nag li ko ñoroon lenn dong la mooy nit ñi jub tegu ci aw yoon te ñëpp yor jikko ju rafet moo waraloon mu sanc Touba foo dégg ñu ne sëriñ bee ko sanc looloo tax mu sanc ko kon dafa doon sanc ay dëkk ngir xam ne kuy woote mënoo ñàkk ab barab kuy defar nit mënoo ñàkk barab boo ko defaree moo tax sëriñ bi sañc dëkk yi nga dégg ñu ne moo ko sañc la ko tubaab ba laajoon nag ca njaareem ba tubaab biy laaj patente sëriñ biy laaj ñaar fukk ak juróom-ñett la tubaab bii laaj gën a néew lool li sëriñ bi laaj waaye nit ñi bàyyi ko fi di joxe li sëriñ bi laaj ba tubaab ba ñëwee laaj ko sëriñ bi sëriñ bi daf ko wax ne ko dana ko nit ñi kat da ngeen maa njëkk ci seeni jëmm waaye ma njëkk leen ci seeni xol daat koy laaj magasin yooyu nekk ca booy dugg njaareem ne ko ne ko lu muy lan la mu ne ko magasin mu ne ko lu muy jariñ mu ne ko ngir def ab dund ak denc mu ne ko xotti magasin yi mooy doomu aadama yi li na ci seen biir